Jotali point net di jox ay xibaar ci tàng-tàng bi Jotali point net ay xibaar yu wóor ay journalistes yu mën seen liggéey Jotali point net vous êtes au cœur de l'info mën ngeen a abonné ci seen chaîne YouTube ngir ngeen di mën di déglu euh, seen revue de presse ak Abdou Khadre Seck dale nag jàmm ñu ànd xëy yér yéen kaay ñu xëyandoo yéen kaay gii di Vox Populi enquête la Tribune ñu xëy dañu xibaar naan ñu PDS fi ñu jàppoon ba léegi bàyyeeguñu ko ndax kalaame bi ñu kalaame ji woon ca kanamu Cour suprême kalaame boobee maanaam recours bi ni ko suba danañu ko àtte yéen gi ne suba ci àjjuma ji ñi nga xam ne ñu waa Cour suprême danañu yiy yàbbee ci kalaame bi nga xam ne waa PDS kalaame ngir nag bëgg élection yi ñu daal di koy dakkal bëri na ay jalgati yoo xam ne daan na ci am ndax nee nañu décret bi nga xam ne moo convoqué élection yi jàpp ko 24 mars décret boobee maanaam dañoo bëgg ñu daal di koy nasaxal bëgg nañu jàpp ne maanaam bis yi nga xam ne moom la ñu jàpp ne moom la ñuy dem campagne loolee viole loi bi la journal bi ne décret yi la PDS bëgg ñu daal di koy niilal maanaam ñu daal di koy annulé ngir nag élection yi jamono ji ñu daal di koy dakkal yéen kay gi di libération nangul nañu suba ci àjjuma ji ca cour suprême yéene kaay gi dafa soppale xëy duñu xibaar nañu Karim Wade ak ñi mu àndal jamono ji li ñuy sàkku mooy conseil constitutionnel ñu daal koy tas ndax ñoom waa PDS dañoo jàpp ne maanaam mbirum guerre ci boppam moo am ci mbir mi li am ci biir journal bi di réew mi quotidien mooy kàddu yi waa ñoom nag dañoo jàpp ne Amadou Ba ak yenn ci siis maanaam dañoo yëngu yëngutu ci lu jëm ci wàllum guerre yéene kaay gi du l'observateur xëy duñu xibaar naan ñu Macky Sall ak ñi nga xam ne ñuy waa APR ni ki démb doon nañoo amal ab réunion sa réunion boobee nag président Macky Sall daan nay wax militant yi ngir nag ñu dem jàppale ji Amadou Ba ngir mu mën a am victoire 24 mars 2024 bi nga xam ne moom la ñu dëgmal yéene kaay gi da foo xëy duñu xibaar naan ñu Macky Sall libéré na waa APR ngir nag ñu boobee Omar Anne fekkiwu ko Doudou Ka ko Amadou Ba tamit fekkiwu ko yéen gi di source wa xëy duñuy xibaar naan ñu ca biir réunion boobee nag Macky Sall bi mu yëkkatee ay kaddu maanaam kaddu yu daw yaram moom la Macky Sall yëkkatee maanaam kaddu gi yërëmtalul loola ba sax am na ay jigéen ñoo xam ne ci biir réunion bi doon nañu jooye yéen gi nee na Macky ci boppam daan wax ci lu jëm ci conseil constitutionnel nee na wax na ak njiitul ko njiitul conseil constitutionnel bi ma ko laajee ci lu jëm ci mbiri Karim Wade Macky nee na njiitul conseil constitutionnel waxu ko lenn lu leer ci li tax Karim Wade ñu éliminer ko Macky démb ci réunion bi daan wax ne processus électoral bi bëri na loo xam ne lu ci lëndëm la maanaam bëri na lëndëm lëndëm bëri na lu ci jaaduwul loolee Macky Sall démb xamal na ko waa APR yéen i kaay gi du source xëy duñu xibaar ñu Macky Sall démb ci dafa yërëmtalu loola Macky Sall commencé naa jeex mën na la xoolu jaaxle Sall Macky Sall doon xool yéene kaay gii di wax ne dem leen jàppale ji Amadou Ba waaye nag Macky Sall kàddoom yooyu jar naa xoolaata dafa mel ni Macky Sall jàppale gi nga xam ne moom la wax ne moom la jàppale Amadou Ba maanaam génnul ci tuñam yooyee ba pare Macky Sall démb dal na ci ñi nga xam ne ñuy waa conseil constitutionnel moom Macky Sall démb ci réunion bi daan wax ne bëri na ay mbir yu garaaw mbir yu doy ko maanaam jaaduwul ay yéenekaay gi nee na Macky nag dafa mer ba maara de tale ci Bassirou Diomaye Faye mi nga xam ne validé nañ a baax ko éliminé lu jëm nag ci wàllum jokkoo gi mu doon jokkoo ak Amadou Ba te mu fiute dem ci presse bi loolee tamit naqari na Macky démb daan na koy xamle ci réunion bi yéenekaay gi di point actu xëy duñu xibaar nañu Macky nag dénk na parti bi Amadou Mame Diop yéenekaay gi di Les Échos xëy duñu xibaar nañu kaay gi ne na Thierno Lo moo nekkoon président conseil d'administration bu SETER yéen kaay gi de la témoin xëy duñu xibaar nañu démb ci réunion bi APR bi Macky moo fa jël kàddu yéen gi di Vox Populi xëy duñuy xibaar nañu cooki fin moo des jamono ji nag ci lu jëm ci wàllum élection yi ndax nag Macky Sall nga xam ne wax nañu ne dina battre campagne ci wetu Amadou Ba Macky boo ànd ak Ba di campagne te Ousmane Sonko moom tam bu yéen a kaay gii di point actu xëy duñu xibaar naan ñu en wax naan Macky Sall dafay wàcc battre campagne ngir Amadou Ba journal bi nee na moom gisul loola bi nee na Macky Sall amul benn engagement boo xam ne Macky Sall jël na ko ngir wàcc ci terrain bi ngir ànd ak Amadou Ba battre campagne journal bi nee na maanaam Macky Sall jëlul benn engagement ci lu jëm ci wàllu yéen a kaay gii di libération ñi xëy fekk fa Aline Mamadou Dia daan nay wax ne lu jëm ci wàllum inondation yi bu ñu ma dénkee réew mi dinaa ko lijjantee yéen a kaay gii di Vox Populi Mamadou Lamine Diallo daan wax ne Amadou Ba photocopie Macky Sall la ndax Cheikh am loole daf wax ne bu ñu ko dénkee réew mi dina juboolee askan wi ak ñi nga xam ne ñooy takk der yi yéen kaay gi de l'info Thierno Alassane Sall nee na bu ñu ko dénkee réew mi dina tas ACCT maanaam au conseil des collectivités territoriales yàlla da ko fiy jëlee waaye tamit conseil économique social environnemental daf ko fiy jëlee yéene kaay gi ñu xëy fekk fa Malick Gakou daan wax ne bu ñu ko dénkee réew mi maanaam dund gu seer gi dina ko wàññi yéene kaay gi de la turbina Idrissa Seck Khalifa Sall démb ñoom ñaar dajee nañ fi nga xam ne mooy Thiès ñoom ñaar nuyoo nañu saafonte nañ fair play yéene kaay gi ne na ñoom ñaar ñoo ànd daal di dogandoo Idrissa Seck ne na bu ñu ko dénkee réew mi dina

Karim benn bokk yaakaar mooy gagné élection yi ci premier tour yéene kaay gi di Dakar Presse xëy duñu xibaar naan ñu Cap Manuel Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye jamono ji nag defar nañ seeni valise defar nañ seeni bagage ba pare defar nañ seeni valise jël nañ seeni kaaka lépp lu ñu fa am jël nañ ko jamono ji ngir nag daal di génn ci kasu bi njiitu di président Macky Sall démb ci conseil des daan nay wax ne lu jëm ci wàllum loi amnistie na Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko tey jii la génn yéen kaay gi di l'Express Mohamed Boun Abdallah Dionne nee na bu ñu ko dénkee réew mi service militaire obligatoire lay def nee na lu jëm ci wàllum inondation yi bu ñu ko dénkee réew mi dina ko lijjanti yi journal bi di révélation ñu xëy fekk fa Boubacar Camara daan wax ne candidat yi candidat bu ko ñemee ngeen ñëw na ngeen débat ci seen programme ci plateau yéen kaay gi di source xëy xam ñoo si ñàkk seen bakkan am lu toll si ñett ñoo xam ñoo si am ay gaañu-gaañu yu métte métte maanaam trois blessés graves journal bi ne na benn sept place moo mbëkkante ak benn camion jotali point net moo leen di jox ay xibaar ci tàng-tàng bi jotali point net ay xibaar yu wóor ay journalistes yu mën seen liggéey jotali point mën ngeen a abonné ci seen chaîne YouTube ngir ngeen di mën di déglu euh, seen revue de presse ak Abdou Khadre Seck